waay salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi bu nu waxantee dëgg ñi am xel laay waxal de man du ma ragal xam nga lu tax du ma ragal parce que man maa ngi Allemagne déw ma dikku ma lu xew ñoom ñoo ma koy jox da ngay seq ak safar laalanteeg moom jël vidéo ba xulloog moom yónnee ma ko man maa ngi ay preuve yuy wane ne diw moo ma yónnee lii diw moo ma yónnee yor seen numéro am na ñoo xam da leen di jaral ñu simmi seen baaraam seen bopp yónnee ma ko pour ma kaa leen man sax may bañ naan leen du kaa mais pour nit ñi xam leen jaral na leen ko yéenay suturaal te seen biir. xulloog nit di ko yàq xulloog nit di tuuxa te am na ñoo xam ne dañ ciy d'accord moo tax man duma ma dara bàyyi leen di wax Adamo sénégalais yi man dew ma dikku ma seen far yi yéen ko yónnee wala seen gel yi ñi ngeen ko séqal ñoom ñoo koy def du keneen de man maa leen di suturaat rek mais ñoom ci boppam ñoom ñoo ma koy yónnee te maa ngi preuve yi tey ji ku plainte woon ci àdduna bi ma génne la preuve yoo xam ne dama naan diw moo bëgg ma kaa ko yëfam la moo ma ko yónnee preuve yaa ngi nii cottu ndayam nag man du ma ruux man dew ma dikku ma maa ngi fi ma salaamaaleykum